jaratul kenn di laaj lan mooy njariñu autopont yi nekk ci ndakaaru ndax fépp foo ci dem ñu bari ci askan wi dañu fay dem di noppalikoo ñeneen ñi taamu ko ndax taar ba nga xamante ni am na ko ñu def fa ay espace vert yu mucc ayib li ni mel moo tax ñu bari bëgg ko ci seeni ay dëkkuwaay taxawaayu autopont yi ci ndakaaru sabab li nekkoon yombal dem bekk dikki bi ci biir ndakaaru yépp ak itamit boole ci espace bu rafet lii ngeen di seen méngoo lool ak li am fii ci Parcelles Assainies fii nag moom dara amu fii li ni mel jaaxal ñi fi yeewoo. limay wax ci place bi dal moy manam euh, wéetaay bi liñ ko bayyi non mu fi Mouride rek moo ñu metti ndax buñu sañu def fi loo xam ne jëriñ doom adamay manam maanaam def fi ay boutique wala ay marché wala espace vert bok au moins bu nit ñi tok di feex lo ba tay baxna fi. bi tay jii boo defoon ay fleur daf fi daf fi suul suy fi ay béton gaay mu mën ñoo di féexlu sax mu am ay banc public daf fi amna na air géej gaay ni nii aération direct ngay am mais tay ji ni ñu bàyyi ko nii amul ben sens poussière bi du jóg. fii bu ngelawee doo fi doo fi toog ñu ngi toog nii sax mais dañuy jóg léegi dem. bërëb bii laata muy mel nii amoon na ñu fi ñëwoon di fi daan seen doole borom charrette yi ak jaaykat yi waaye mu mel ni boobu ak léegi dañu leen faa jëlee. ah ñii kat liñ def moom dangay ngay waaru nee waa Azurut ñoo ko gérer ñoom may ñu kenn mu dem teg fee dara borom charrette yi ñoom fi lañ doon teg seen fas yëpp jëlee nañ leen fii defuñu fi dara.

moy bërëb bi amat benen xar kanam bu yes mais tey ni il faut lol yop ñu baye sen xel mais li yop ay ay jeune mën mën nañ fi liggéey fi ba fele mu ay jeune mën nañ fi liggéey mais tey da nga xol bo démé ci koñ yi gars yi ñu ngi tok li yop boy mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko occupé par ngon fi la boy ñëw di football ni dañuy président ñi daf ay grand grand compte politique yop mais li ni mo na nek lenen parce que nit ñi bëgg nañu liggéey mais amuñu espace bu ñu liggéey wa fi tégan ben glacière ndox di jaay sax bu ñëwé ne la jógal ñun ñi ngi bëgg a liggéey mais amuñu fu ñu liggéey tegoon daal di liggéey dañ lay romb ne la yëkkati léegi wala ñu woowaa mairie bëgg nañoo liggéey mais amuñu fu ñu teg pour liggéey. bu weesoo seeni ay bëgg-bëgg ñoom askan wi taamu nañ ci espace vert bu mucc ayib nax ñoom ñu fiy mën di ñëw di féexlu. parce que yaatu na ca yàgg na bañ ko bañ fi jëlee nit ñi léegi yàgg na mat na au moins quatre ans ou cinq ans te defuñu fi dara dañoon dañuy programme fi espace vert mais ba léegi defuñu fi dara kon nag ñi ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo ko yore ñu woon loo xam ne dina jëriñ doomu yi parce que bàyyi ko nii rek du njëriñu kenn du dëgg ñun loolu daal la ñuy ñaan ñu defee loo xam dana jëriñ nit ñi. bëgg-bëgg ña yeewoo ca diwaanu Parcelles Assainies daanaka fii ñi yeewoo ci diwaanu Yoff ñoom am nañu ko ba pare autopont bu mucc ay ayib ñu defar ko mu ànd ak espace vert ñu bari ñu yeewoo fii ci diwaanu Yoff tàmmu ko di fi ñëw di noppali ko. endroit bi moom vraiment endroit bu neex la moom vraiment. xalé yi day fii ñëw di fi fo vraiment dafa dafa dafa féex dafa cool moom vraiment neex na trop moom wa lool mom vraiment mom ñepp ko wara am mom wax deug yalla ñepp wara am milieu bu melni parce que milieu bi mom milieu bu neex la mom parce que andoura bu calme la bu bu bu bu ki bu bu aéré bo xamantene man nga ci nek di di di nek yak sa njabot ngeen ngeen ngeen nek ci benen climat bu nga xamante par rapport ak kër kër yi nga xamante ne daanaka dafa tëju appartement su fekkente ne da nga ñëw fii ak sa njaboot dañuy défilé wu mën a foo mën divertir li ni mel ñeneen ñoo koy mooy ñiy faral di dem ci autopont bi nekk école normale tar moom macha allah rafet na vraiment toppatoo ñi ngi koy toppatoo rafet na maire yi ñu ngi fi ñëw toujours bi di ko roose loolu moom rafet na moom waaw. waaw espace bi mi ngi ah, moom yaatu na trop waaw fii moom sénégalais ko moom waaw te ñun ay sénégalais lañ. daanaka ci bërëb yi xar kanam bu mucc ayib li di décor bi nak liko gëna jëmmal moy garab yu rafet yi nga xamanteni def nañu ko fi ba paré décor bi tamit décor dafa rafet ndax àddina lo gis décor daf ci bax bo xamanteni day attirer nit ñi mo nga xamanteni nit ku fi romb rek da ngay xémé fé waccu tok des fois nga gis ño xamanteni dañuy ñëw tok photo wu def yoy defa nga gis ño xamanteni dañuy def ak yoy yépp moo tax endroit boo xamante ne daal yu luñ yàggoon di xaar la mais comme am nañ ko léegi alhamdulilah ñëpp a ngi ciy gis seen bopp daal. waaw garab yi loo xool garab yëpp vert ah waaw te gars yi ñoom yàquñu sax ndax garab yi moom vert moom boo koy xool moom dafa bokk ci lislaam quoi. bu weesoo taar beeg li ni mel ñiy faral di dem ci autopont bi nekk fii ci école normale ñoom it leen rekk moo leen metti mooy ñi nga xamante ni ñoo fi faral di ñëw ñu jàpp ni bu ñu deful ndànk bërëb bii mën naa naax saay. xaw na xari mooy li ñu fi bàyyi bojumaan yi ñu nekk di fa def lu leen neex te kenn du leen wax dara ñun même fii nu nekk nii bi ñu fi nekkee bi ñu soog ñëw dañ doon fekk nu di fa pop di fa saw ñu di fi tëdd ay bojumaan di fa ñëw ay naan kër sàngara di fa yenn di fanaan bi ñëwee ñu la affaire boobu dégagé woon dañ doon këf saagu jàmbur fii bëccëg mais bi jaaykat yi ñëwee la ko la ko affaire boobu commencé dañ te taabal yor dara dañuy lal rek si ci ci si gi bu ngone bu lalé mu dem bu ñëbal no lal dañuy balé bam mu set wecc mais da nga gis espace fi ni mu rafete ni ba paré nu bayyi bu jumaan da naka ñom moy seen kër lool la man vraiment def na ma problème quoi. ngir gëna mëna sam bërepp bi ci tar bi nga xamanteni am na ko waaye tamit fexé ba garab yi gëna naat faaw taxaway benen am bu ñu sukkandiko ñi nga xamanteni ñofi fi faral di ñëw. lool tam dina gëna bax nak ñu gën ko defar entretien parce que tamit boo xoolee pour mu gën normal dal foog ñu di ko toppatoo toppatoo bi am solo gis naa ñu di ko roose quoi mais lu mu gën a luñ ko gën a téye daal luñ ko gën a def entretien moo gën waa xanaa gën a gën a boolewaat parce que lépp loo gis rek ci àddina euh, du kenn moo koy def du ñaar moo koy def ñett ñeent ñoo koy def population ñëpp ñoo ko war a di ko def parce que hygiène set nekkul na nit ki yow kase wala ki nga xamante ne moom lañ jël moom moo ko war a def. autopont bi nekk fii ci yoof ak bi nekk ci école normale ñu bari ci askan wi dañu fay faral di dem li ko waral mooy taaruwaay bi bu weesoo loolu autopont bi nekk ci école normale mu mel ni jamono yi ay buujumaan ñoo fa nekk. li ni mel nag ñi nga xamante ni ñoo fay faral di dem ak ñi fa nekk daal di koy ñaawlu bu baax a baax fekk na jamono yooyu ñi yewoo fii ci yi ni ñoom it bëgg autopont bu mucc ayib boo xamante ni dañu faral di fa dem di noppalikoo loolu doon jamono yi seen bëgg-bëgg.